non non non non yàlla baax na moo bu ñu ñëwee di ko Ousmane dañuy arrêté élection yi non loi loi commencé wax ay code non code daa nga xam mën a ci kii dinañu yàqal. code euh, code collectivité code électoral mu ne ci ah, kii dinañu yàqal nag kii xanaa bëggul génn fii tam gis njabootam ma la neelam ko rek même bu bokkul sax na génn dem gis njabootam gars yi ñëwaat nag Ousmane il faut voir ta femme. te famille ah, non non c'est pas possible on va non non yàlla baax na yàlla baax na ñun kay nañ jëw Ousmane man man wóolu naa jomaay quoi jëw naa jo booy séeréer quoi nañ ko ko ko ñu ñëwaat ne mais yow sa waa ji yow doo te te ngaa jël téléphone wax ak moom man leen non du ma wax ak moom du ma wax ak moom de man ak waa ji moom pale rek di ñu wax ba pale loolu moom dama ko wax nee woon naa ni man ak Ousmane Sonko ba pale du ma wax ak moom <laughs> ma pour wax ak moom quoi man ak moom ba pale da dëgër bopp dafa dëgër bopp waa jooju ak dëgër bopp non pour génne ko fa coow loo xam ni même bu ñu demee war ko génne mun na fa naan day julli quoi dem ba mu teg pourtant waxoon nañ ko mu préparé ay bagages ne ko suba jour bu ma jàmbal waxee jour boobu la waroon génn ñu faussé ma jàmbal dulloo ko jour boobu la waroon génn ci saa si daar daar ñu dem waxaat Macky ok nañ bàyyi la lendemain ay waay Ousmane dafa waay ma julli ay xawma la man naa fi la la sama ma naa ma ne si gars ma sa waa ji compliqué na nag ma ngay naa fi la ma ne ñu eh, billaahi man ma naa di yàgg ñu ma kii buy naa fi heures de temps lay def waa ji na bopp de kaay génn mu naan damay naa fi ñu tardel ne fa di naafi di naafi la non Ousmane Ousmane ah, yoral na ma àq nag yoral na ma àq waa ji dëgër na du négocier dafa dëggoo dëggu dëggu du la may dara dara dara <laughs> du jël xaalis du man nee naa la lu ma ko war a wax lu ma ko war a moom am na loo xam ne man wax naa ko lu ma war a wax man ak Ousmane Sonko ñoo toog quoi ma ne ko grand grand yow may ma ndox ma naan ba pare balaa maa wax ak yow quoi yow grand yow grand yow fuñ dugg yaa grand sonal nga ñu grand nit day day nooy tuuti sax quoi day nooy tuuti lu ne def nañ ko lu ñu liggéey nga këppal ñu ko lu ñu liggéey nga këppal mais grand bu ma nee léegi nañ ko wax waxu jabar quoi nañ ko wax ne même bu génnee sax jarul élection sax comme moom buggul kii léegi moom na dellu comme këram euh, pour affaire jabar <laughs> moo <laughs> mooy Ousmane naan non c'est pas grave loolu dara non man man ñu ngi ñëw fii ñu ngi gisante ñu ngi daw euh, ma ne yéey waay amul sax yërmande dem gis ay ay ay njabootam ko amul sax yërmandeem quoi génn prison ñuy wax dara demul sax këram dem géej dem dem hôtel ba toog ma ne mais mais kii xanaa namul ay jabaram moom. moo tax ma laay ba ma leen ko wax ne mais mais koo jàpp mais doo dem seeti say jabar yow yow ngir yàlla sax toog ak ñoom sax deux minutes mais waa moom moom xanaa àdduna moom moom moom moom Sénégal la moom xanaa amul ay jabar yow yaa ngi nekk ci kaso bi fi le sept huit mois ñu génne la ngay dèjà ngay wax waxu naafi la ñu génne la demal sa kër nga nekk ngay dem géej di dem ci hôtel demal nga seeti sa jabar yi nga lànk <laughs> mais waa ji kii kii kii la ñu wóop non kii lu ma war a wax ak moom moom toog ak moom rek boo boo leen déggee toog nañ xeex la ñu njëkk a def non man tama ne maa ngi koy wax nag Ousmane Sonko bés bu ñuy dajee maa yow dinañ dóorante ba naaw ñu toog waxtaan maa yow parce que sonal nga ñëw xeetu sonal boo xam ni doo négocier doo déglu doo dëgër nga bopp yow yow sonal nga ñu barke Rasulullah up, up, up, up, up, up. lu ñu dugg rek waa ji toog fu mu toog toog tuuti mais buñ la demee ba lay jënd defaral say bagage te démb lañ la ko wax defaral say bagage nga bàyyi noonu say bagage Ousmane génnal nga non bàyyi ma julli naafi la bàyyi ma naafi la bàyyi ma naafi la teg jaada ba di julli di julli <laughs> non kii non Ousmane Ousmane tooñkat la daal Ousmane Sonko daal tooñkat la daal vraiment vraiment vraiment vraiment vraiment man xaw waa ji wël moo bi naa xaw ma bu dul wëlliw xut bu samaan ma man xaw kii lan la man moom vraiment kii moom daf ma échappé quoi daf ma échappé xaw fu ma jaar man Ousmane am nañu waxtaan de mais bés bu ma gisee armé wul def karaté ma def taekwondo bés bu ma bu ma la gisee armé wu laa la dinañ fëggante man ak yow ba mu saf sàpp ñu toog commencé waxtaan. wax naa la ko nag ndax coono gi ñu teg nga toog fu nga toog ñuy nëgg nga ngay yàq liggéey nga yàq ko dama ne man ak yow bu ñu dajee. dinañ dóorante kur feñ nga sànni maajeeri ma sàlli gëneen braat ma dóor la uppercut suqi muqi ba mu saf sàpp nga taxaw ñu sa sa jabari atte ñu nga ñu mën a waxtaan. parce que du ma la bàyyee noonu yow du ma la bàyyee noonu ah te dama la du ma la bàyyee noonu de wax naa la ko nag loolu liggéey mu yàq loolu liggéey mu jaxase loolu fekk yaa ngi xeex fi nekk moom kenn xamul kii est-ce que jógewul ci asamaan si rek ñëw est-ce que jógewul ci asamaan si ñëw man comprendre ma kii amul benn bëgg-bëggu àdduna amul dara dara benn bëgg-bëgg àdduna amu ko jël sa bakkan bi teg ko ci Sénégal Sénégal Sénégal Sénégal Sénégal mais Eh, Ousmane am na beneen dund ngir yàlla am na beneen dund ngir yàlla am na beneen dund quand même mais mënoo jël sa àdduna bakkan bi yëpp teg ci Sénégal Sénégal Sénégal dara booy séeréer sax moom amul problème moom booy séeréer moom moom moom amul problème quoi sama jàppewul dara muy dara am na diine yatuna tout le ak a baax sama gars nak tout le dañ ko a non parle avec avec parle-les parle-les il faut pas qu'il y ait problème entre eux hein mais le il y aura pas problème oui oui oui mais là, s'il te plaît fais-nous fais fais ça pour nous parle le hein. cette année a a wax mais il faut pas que Ousmane ak Diomaye problème man Sénégalais Ousmane Diomaye lañ Ousmane Diomaye la ñu fal moo tax seytaane yi gars yi ñu am onde magnétique gu gars yi non ñun faluñu Ousmane de ñun Diomaye la ñu fal dañoo bëgg a diviser ak ñoo bëgg a diviser moo tax man leen man bu dee man la rek Ousmane conseil spécial lay doon ñaari président lañ fal ñun Sénégal pour une première fois ñaari président ñun ñoo tey ñoo ko fal ñun sénégalais yi parce que luñ bëgg ñu lu dul diviser leen gars yi ne ma moo il faut les parler de il faut qu'il man leen non Jomaay bu mu premier doomam Ousmane Sonko la ko tuddee ñaar ñi correct soow cerek soow cerek soow <laughs> càkri càkri càkri ah bon oui oui càkri càkri tu peux pas tu peux pas décerner là euh, le lait au comment l'autre là au grain là Jomaay c'est du càkri euh, quoi ah c'est bon moi mais il faut parler de eh moi là il faut pas donner aux ennemis là euh, ma leen c'est mélanger c'est du chakri Ousmane moy jomay jomay moy Ousmane c'est du chakri ken mënu leen séparer ken voilà ni Amadou Ba nak <laughs> fatt fep mo tax tuuti mu dee fatt fep mu genn bëgg sisu ay goudi googu goudi googu la tangal goudi googu bu bu may live fi mu na day def conférence de presse suba ci saasa laa <laughs> dagg live ba daw ma leen ne naa ay conférence ak nag man naan day day bañ résultat man de damay taal nday Sénégal tey rek laay taal nday Sénégal tey laay boyal ndayam koy alma ay ca ay ta taxaw leen conférence bu ko ko rek ma taal nday Sénégal taal nday kërëm maa ngi maa ngi wër kërëm maa ngi teg kërëm ki nii ay damay taal ndayam woo Amadou Sall Amadou Sall sa papa wol sa papa na gaaw na gaaw na bu dee sa papa dafa bëgg a génn fii rey tous les sénégalais mujjee CPI cent ans de prison ferme hold up électoral boobu Amadou Ba yoonam newu ci de da koy hold up doon président mais ñun dina rey ñun ñëpp bu boobaa sa bàyyi ci kaso ba la jëm ko si Amadou Sall mu ne ko waaw Amadou bax bu genné wax loolu ñun Sénégal dinañ ko taal ba mu lak jeex tak, dinañu ray ba jeex tak te boba sa papa président dé ces pays lay mujjé dé 100 ans de prison ferme mais Amadou Ba duñu jité hein ah, ko dawal wax ko dawal dawal dawal dawal dawal dawal gaw ne gaay genn génn jubilé jubile jubilé jubilé jubilé yuhu jubilé jubilé jubile na gaw na gaw na gaw gaay genn paquet mbedd barki alquran la la wax am Amadou Sall daw dem Mermoz gis bayam nako papa papa billahi boko baye ni yow ci kasso beug dem ñun ci kasso ñu ñëppay dé parce que Amadou Ba bëss bu génné di wax naan day dafa rejeter résultat yi dëkk bi dina tak, ba ci tak té di nga rey leen ñëpp da nga ñëw nu nga mujjé rafet def ngay élection yu jaar yoon woote nga dialogue doxut nga woote amnistie doxut yaa ngi jéem a génn mu rafet fomp nga deret gi yëpp pour génn ci jàmm yàq nga fi fomp deret bi attention waa jële nguur rek lay wër bés bu la poussé nga seetaan yow ba waa ji fee toog rey sénégalais bu boobaa dootoo mën a fomp deret bi de parce que deret gi day bëri lool néew yi da nga ci seen kaw parce que alxuraan conférence boobu ba léegi boobu ñoom ma jàmbal jaan ñi nga accéléré ayca na ko def na ko def Macky Sall jël téléphone na ko teg ko ci suuf ci suuf mu ne ah moom laa ko doon saboté ah Kula Ndondong ah Kula Macky Sall accu mi accu mi wata ma deuxième tour ah, ah Kona T'as coté souf. T'as coté souf. T'as coté souf. Hum? T'as coté souf. Ah, coné la langue. Hum, magé la langue. Hum, pita no velani. Hum, coné la langue, magé la chumikan. Atumé votre deuxième tour. Nyom farbangom coné di wate. Vur, vur, vur, magé la gelou ken. Nen, tu m'as l'al dara. Dour nil le nangoulin. Ne amoudou ba bez boumou le gise. Gé gène di konfera de mouye tek sandai kaso. Lolo kwa kaso. Kaso barki alquran bu Amadou Ba gennon conférence Macky Sall tëgg ndeyam ci kasso bi bal len ma ak damaa billahi da ko menacé daf nako ko bu ma la news ngay conférence doko yegali nangul dañ la ñuus ñep nangu nañ dañ lu ñuus ba tok sa kaw billahi wallahi mo tax bu mu le lendemain la wax da goudi ko la wax né le lendemain dugat dawat ñu né jeex na <laughs> moo toog ne tek ko kay live mi ngi fi lii live naa ko de bu muy def Macky di ko woo ba mu ne ah Kounda Alalong lool na samay samay feeling la maa ko yokk sincèrement maa ko ci yokk pour saboter waa ji teg ko ci suuf mu ne ah Kounda Alalong Macky Sall nag déggu ma wolo déggu ma lu tax may làkk may làkk pulaar man lu tax may làkk pulaar ah mais loolu la maa ko ci yokk c'est du cinéma maa ko ci yokk quoi mais waxtaan nañ Macky na ko teg ko ci suuf. mais ñëpp xam ne ñu yooyu samay feeling la quoi pour reetaandoo un peu neexal gars yi si man la bokk quoi xam nga il faut mu am fën tuuti tu vois mais man maa ko jël fënitiser ko mais mais mais woo na ko Macky Sall woo na ko lool moo tax conférence bu amul te ko menacé ne ko bés boo ko forcé ma teg sa nday ci kaso bi doo doo du am maanaam booy force hold up bi du am te yow si kaso ba nga jëm te Amadou Ba comme daa ragal kaso mu lam ko boo mu ron nangu la lendemain ñi nga xam ne ñoo ko doon xabtal ay ñoom madambal jaañ ñooy rus ku ne yooyu mu ko bëggoon ko def démb bàyyi na ko tey bëggoon na ko bàyyi tey non bientôt dans deux minutes euh, Amadou Ba va appeler Diomaye pour le féliciter ma yéen yéen seen pexe bu juwoon bu juwoon yàq ngeen fii maa leen contre contrecarré man Mollah Morgun maa leen dóor ay uppercut ba ñu wàcc ma dambal jaañ yirim sexe amadou jul da bayal ba ma len door ay hypercut bañu wacc barki alquran ma ñak sama nday sam bay man kesse ma len wacce guddi gogu amadou sallawo ci amu amadou sall dawah wax bayja bayja daw la conférence ñu waw dafa bëgg bañ dé résultat yi Macky Sall nako takko ci suuf wala boko défé sé kasso ba lay deug sa mam ma dambal ñëwaat ñu ne suba ñu toogaat mu yàgg ci guddi gi ay quatre heures di matin la ko Macky Sall woo mu nangu ne ne ko woo ko nga félicité ko gañe na lépp jaar na yoon woo ko nga félicité ko mu woo ko pour félicité ko ma dambal jaan foo ñu ñàkk nag ñànki <laughs> na daa dix daa dix ma kii Amadou Baba après ma kii Diomaye Faye pour le volet chuté ma ne ko yéen pexe bu si sonn éliminé ngeen suñu gars yi mais man ngeen fi fekk soldaaru Sonko bi ngeen fi fekk de soldaaru Diomaye bi bu doon bu doon bu doon bi rek heure bi yéen a ngi reyante bi direct baa ngi tuuru cocc ñu arrêté lépp wàcce lépp ci suuf mu woo ko félicité ko am naa victoire man pare naa ci sénégalais gagné nañ je libre depuis boobu je suis libre xam nga foofu rek laa yamoon ak yéen ci xeex bi xeex bi deux mille vingt et la ci Adji Sarr Sonko musuma ko bàyyi nekk ji nekk ji nekk ci di leen promettre chaque jour man ak Ousmane Sonko ba biir palais man ak Ousmane Sonko ba biir palais yàlla dimbale na ma ci alhamdulilahi rabbil alamin li da laa mus a jóg taxaw bravé naa ci mënaas de mort saaga ndey tentative de corruption lu nekk daj naa ko mais yalla defal na ma ndam gagné na len tay Amadou Ba maka nax daan maki Sall maka nax daan Yérim sex maka rof daan Madame Ba maka nax daan gangoru tiagaja ma len nax daan ñam ñep ma len news ñam ñep ma len news yàlla may ma ndam kon alhamdulilahi rabbil alamin seen ndam la xaaruma ci dara nag dara xaaruma ko ci dara dara xaaruma ko ci dara xaaruma ko ci donc alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla voilà ñoom ñëpp nag jamono jii ñu ngay jéem a nee nañ dañuy transhumé <laughs> mais nee naa la maa leen di xaar Manaar Sall Petrosen da nga da ngay da ngay da ngay transmet maa ngi lay xaar Samuel Sarr prête non à Macky ngay bëgg transmet Amadou mi ngi def tout dafa bëgg a transmet Dame Diané projet Port Ndayane ma ngay def tout jamono ji pour transhumer mun taga pour transhumer gàngoor gu ngand dañoo bugg bu soobee yàlla euh, mon retour c'est après l'installation de Diomaye fay le président Diomaye Faye ndaysaan ku baax a noonu cay Diomaye Diomaye moo bugg Sonko Diomaye ci kaso bi ay Diomaye ndaysaan di ñaanal Sonko rek Diomaye toog na ay guddi di naafila di ñaanal Sonko bay jooy barke alxuraan toog nay guddi ci ñaanal Sonko ca jomaay moo ma jaaxal nekk ci kaso jiitu fa Sonko Sonko fekk fa jomaay di ñaanal Sonko di ñaanal Sonko toute de toute nuit di naafila di naafila di naafila di ñaanal Sonko jomaay musul ñaanal boppam Bassirou Diomaye Faye di ñaanal Sonko rek am na benn guddi naafila goo xam jomaay da doon naafila bay jooy billaahi tee nii nii di ñaan bay jooy nii di jooy di jooy di ñaan di di jàng di ñaan di jooy di jooy xaqam xaqam di jooy pare di ñaanal Sonko di ñaan mais Diomaye bëgg na Sonko de billaahi Diomaye fanaane na ay guddi naafile di ñaanal Sonko barki alxuraan di julli bay jooy di wàcc di toog di ñaan di ñaanal Sonko bay jooy Diomaye Faye ma ñàkk sama ndey ak sama baay ak barke weeru koor gi damay moo bëgg sonko saa yiñ fa jaaree di wax moom sonko la ñuy wax saa yu fa yaraa jaaree chaque jour ba bu Ousmane Sonko di génn amul benn jour bu yaraa tëb chaque jour bu kii pare ma ne ko jaaral jaaral ziar jomaay waay jaaral ziar président jomaay bu ñëwee wax jomaay jomaay waaye mais moom sonko rek moom sonko rek jomaay sonko rek loo amul sonko Ousmane Sonko non waaye ndeysaan moo bëgg sonko jomaay moo bëgg sonko ay booy séeréer moo bëgg sonko ndeysaan jomaay moo baax te jullite nag ñaar ñu jullitee ngi noonu Ousmane Sonko jomaay fay ñaar ñu maanoo ngi noonu ñaar ñooñu ak ñoo ak ñoo set ak ñoo sell ak ñoo gëm yàlla ak ñoo baax foo leen fekk ñi ngi julli foo leen fekk ñi ngi julli ñoom ñaar ñëpp ay sportif lañ nag ñoom ñaar ñëpp mais jomaay moo gën a tàngloo tànk moytu leen jomaay nag xam nga gars yi ay jomaay garde corps ay jomaay mu ak bon tànk ak tànk-tànk moo gën a tànk-tànk Sonko de xaw ma ban art martial la def xaw ma art martial mais jomaay moo tànk tànk bi tànk bi ci kaw bopp bi la ko yóbbu jomaay mi ngeen di gis buy foo bay sànni tànk bi la tànk bi def buf moo gën a tànk Sonko xam nga Sonko tànk bi fii lay yem waaye nii lay def tànk bi doo gis nii comme cawlin barki alxuraan ku moytuwul jomaay bu la fëggee tànk bi comme cawlin tànk bi gaaw na nii ko def fa ak a gaaw xamul lu mu <laughs> mais sama gars yooyu ndaanaan lañ de jomaay fay Ousmane Sonko sama sama gars yooyu lañ barke alxuraan ma ñàkk sama ndey billaahi Diomaye Faye moo gën a tàng Ousmane tànk tànk bi ne la faw tànk ak ak non la def fay tànk bu gaaw la yor tànk bi du comme melax moo gën tànk tàng de xaw ma Sonko karaatal def mais Diomaye ku ko moytuwul bu la fëggee tànk ak a gaaw tànk ma ñàkk sama ndey billaahi wallaahi ak barke weeru koor gii damaa woor moo gën a tàng Ousmane Sonko Diomaye Faye <laughs> moo tax boo déggee gaa ay non euh, militaire yi euh, lañu euh, coup d'état kenn du coup d'état kenn du coup d'état yéen da ngeen jël des fois affaire yi garaawal man kay no mooy wax leen Sonko mu moytu ak Diomaye mu ne coup d'état Eh, élection militaire yi Diomaye moo gagné élection militaire yi Diomaye moo gagné moo dóor Amadou Ba ba toog ci kaw militaire yëpp Diomaye lañ ngeen may wax booy booy tàng yëpp Diomaye